waa OMG c'est une sœur vraiment mu nekk ku baax nekk koo xamante ne je l'estime très bien j'estime son travail donc euh, franchement quand elle m'a invité c'était un grand plaisir pour mu ñëw participer yes. bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr déglu naa ko. mani <laughs> non même bon si amul ko ko bañ mais quand même j'aime la chanson mais yëpp a neex vraiment yëpp a neex yes bah je pense que leneen lu bees la ouverture bu mag la ñu mën a jox surtout à l'international et je l'encourage vraiment vraiment je pense que c'est lu baax la lu mu def la loo xamante ne ngay essayer di tester yeneen affaire donc je l'encourage vraiment ah <laughs> merci merci beaucoup yii boobu moom surprise bu rëy foo xamante ne rek fu gën a kawe daal incha allah xaar leen ko bu baax incha allah. waaw déjà comme ni ma ko waxee rek ñun ñëpp bu ñu booloo dañuy nekk benn man dama commencé fii rek fii lay terminé incha allah am na yeneen projet yu ma am juste bu gën a boolee ñu boolante suñu biir ñu gën a may doole musique sénégalaise incha allah. maanaam li ngeen jege woon seen loolu yëpp la loolu yëpp si ma ko waxee rek ñeneen ñi ñu ngi ñëw tamit du ay chat kese dañu commencé juste avec ay chat mais yeneen yu ñëw incha allah kañ lañuy def maanaam clip bi Sénégal yëpp ñoo ngi koy clip baa ngi ñëw de dañu jël suñu temps def lu graw incha allah incha ngeen kontaan bu soobee yàlla merci merci. waaw ONG sama rakk la sama xarit la sama gaay la man nag euh, on s'est connu il y longtemps donc voilà booba démarré gul sax de à 100 pour cent carrière donc du coup dañu bokk milieu bi et mu nekk ku baax aussi ku yaatu ku rafet euh, xol donc du coup voilà ma moo tax ma ñëw ci invitation bi. cet dala teel a dugg bi ngay doog a génne xam nga ba tey woy boobu fayagul déjà fu ñu ko tegee da ngay yaakaar ni bay tey am nañ jékki-jékki rek xam nga demoon voyage waaw c'est vrai que voyagé woon naa nekkuma fi woon Sénégal yàgguma pourtant cinq yooyu rek laa def bon j'étais et cetera tout ça mais teewul maa ngi doon musique ba maa ngi nekkoon benn cabaret bu tudd 3 mai musuma bàyyi musique musique laa mës a def naam ko génneew ma vidéo defuma dal c'est juste ça mais maa ngi leen di préparer benn affaire bu toj. actrice nga en même temps. waaw damay actrice actrice lu rek <laughs> dama siy coof tuuti rek. waaw euh, par hasard par hasard parce que sama benn xarit bu tudd évasion bu nekk mu ngi ci euh, Evenprod donc euh, vautour la nekk moom moo boo moo publier sama photo euh, maison de production bi gis ko ne kii image am daf ñu ne indil ñu ko noonu laa bokkee sa infidèle dëgg la waaw mais c'est normal xam nga tamit Even Prod dañoo innover et que dañoo oser oser di wax li nga xamante moom la ñuy wax couramment te du déranger ñu def ko ci télé bi c'est normal que mu xaw a choqué mais les gens ñu ngi comprendre esprit bi ñu doon demee ça fait rien c'est normal lépp lu nit di def il faut mu am critique ci la bokk lu neex bàyyi ma dee la ko lu neex waaw. nee naa ne dama koy teg yaa ne ma ma téye ko. ma téye loolu la. mere naa la. hello Edmo. ñu ngi lay nuyu bu baax di rafet sa teewaay fii. maa ngi leen di fay bu baax a baax di rafetlu seen teewaay fii. nan nan nan nga gisee tey album OMG bi ndax moom moo leen tax a jóg. oui album bi c'est très intéressant et bettuma ci OMG déjà parce que moom déjà c'est une bosseuse et elle innove xam nga lu ma wax. et aujourd'hui elle l'a prouvé mu ñëw génne loo xamante ne si euh, c'est un album en français euh, parce que du ma ne c'est un album français c'est un album en français tu vois et loolu tey jii nii beneen public beneen beneen beneen cible beneen marché le ciblé c'est pas facile et c'est pas évident mais la a eu le courage et l'a fait et dañ koy soutenir ci loolu noonu di ko encourager di wax sénégalais yi ñu ngi ni dégloo daju di ko dégloo tey kii mu leen di neex dégloo leen noonu OMG te xam ni album bi seen album la yéen ko moom àdduna bi yëpp moo ko moom rasta voilà ñu gis nag gañ nga génnee hmm. te musique dafa fiir ñu bëri dañu yaakaar ni depuis bi nga duggee si acting bi ba tey amatoo temps studio wala liggéey li nga xam ne pour génnee sa fans yi tey laa gën a dem studio sax tey laa gën a dem studio man studio sama kër la ne donc maa ngi enregistré chaque jour maa ngi lu bëri yoo xam ne def naa ko et euh, ñi nga xam ne dañoo wax ne non Edmo ni naa ne tenez vous prêt waajal leen takk leen ceinture yi dëgërlu leen lekk leen ba suur ndax maa ngi ñëw <laughs> maa ngi ñëw te bu mu ñëwee lépp dina neex bu soobee yàlla. ñu gis ni bi nga nekkee ci maîtresse d'un homme marié demoon nañ ba benn instant fu ñu la gis en dehors de la série dañ fay gis ki nga xam ne moom mooy Racky. ñu bëri doon laaj ban relation ngeen am yéen ñaar est-ce que nobante woo leen. non Racky sama soxna la bàyyi li ngeen def moom sama chéri la mooy chéri wax ji jeex na loo mu ngi noonu <laughs> non mais e euh, voilà, c'était une série, c'était, on, on, devait le, le, jeu l'a joué. Tu vois, mais ça reste dans la série, quoi, très franchement. Yeah. Donc, loolu kese la quoi, franchement. Pour ñi nga xam ne dañoo foogoon sama soxna la nag, I'm sorry, maa ngi jégalu. <laughs> D'accord, donc ñu ngi lay jaajëfal bu baax. Léegi yaa ngi préparé, am na loo ñuy préparé. Lu doy waar, lu métti. Mais dégg naa en dehors de musique bi ngay def. Mm. ak théâtre bi. Mm. da nga dans l'entrepreneuriat. bu baax waajal leen. foo loolu moom du ma ko ci wax fii waaye waajal leen <laughs> eh, Jooz en tout cas bu baax di kontaan ci bu baax a baax et leen wax maa ngi ñëw incha allah mais pour le moment album OMG moo fi nekk dañ ko dem déglu jaajëf. ñu taxaw Melody Jaw Diop alias Didi. fay naa la sister moo ma jaaxal. non no non man dama yàgg bëgg mélodie moo tax gars yi naan ma yow li ngay woy booy wax sax day mel ni da ngay woy donc ñu may woy Mister Melody mais loolu yàgg na nag ta collège mi naa nag da nga yàgg man. <laughs> ñu ngi sama sister la tey euh, dama teew pas en tant que artiste mais dama teew. <laughs> <laughs> tout ça donc dama teew en tant que tey un frère bu ñëw voilà pour ñëw soutenir système donc euh, ma am contentement trop ci teew fi tey muy nekk di proposer benn projet bu bees boo xamante ni da ngay gis ni voilà c'est l'avancement de la musique sénégalaise donc ñun ñëpp ñu fier ci donc euh, moo waral suñu teewaay kenn ñu yàqal waaw man dama dama dama nekk ci benn optique boo xamante ni pour man tey il faut ñu jël ñun li ñu moom muy suñu instrument traditionnel ak leneen ñu fexe nañu lañ koy fusionner ak yeneen yi nga xamante ni yeneen style de musique la wala yeneen sonorités yi pour mën a jaay la musique la culture sénégalaise donc que ça soit muy Ousmane Bongo wala tous les artistes moi j'adore collaborer parce que pour man lu benn nit mën ñaar ñoo ko daax te ku ci nekk bu apporter benn touche personnelle am dangay ngay gis day jox loo xamante ni souvent bu génnee dafay neex ñi ni te loolu moo mën a may doole la musique sénégalaise. fa ngeen ñu génne dañu gis benn vidéo di circuler say matériel benn waaye duggoon sa studio sàcc ko ñuy wone caméra yi ci biir fan la histoire boobu mujjee est mujjee nga xam kan moo sàcc. waaw alhamdulilah yàlla def na waa gendarmerie def nañ ci liggéey bu am solo donc finalement mujj nañ arrêté waa ji et j'ai sama matériel yi. donc euh, di di leen ci remercier voilà gis naa tamit presque bi ni ñu ci jàppee ñëpp partager ko relayer l'information waaw effectivement dañ daji woon studio bi cambriolé ma mais bon yàlla baax na. léegi léegi léegi léegi léegi nii léegi nii jot a jour léegi célibataire gi moom day jeex léegi nii. maestro nga génne album album bi nga tuddee ko 8 mars. nga def si clip clip bi aussi tudd mu am benn chanson aussi bu tudd 8 mars ci album bi donc ñu jékki-jékki rek gis yàgg na nga nag ci musique bi mais ñu bëri xamuñu la woon nga ñëw Mboulayé Thieguène avant même nga koy clip réseaux sociaux yi site internet yi ñëpp di si wax est-ce xaaral nga ko ci biir album bi waaw xam nga nit moom booy def son booy def musique saa booy liggéey tu da ngay liggéey pour nit ñi pour nit ñi déglu la wala pour mu am benn benn benn explosivité quoi Euh, pour mu moment bi mu ñëwee moom bett na ma mais xaaroon naa ne tôt ou tard un jour sama benn son dina tàkk Sénégal maanaam tàkk comme ni mu tàkkee nii mais xaw mu ne woon ci mu laay cegin bi bi lay doo euh, lay loolu mbiru yàlla la moo tax gis nga nit ki liggéeyal la moo ëpp solo moo tax bu mu ñëwee tamit sa fait plaisir mais tamit mooy loolu dañ koy sante yàlla rek. donc album bi lan nga ko fas yéenee gunge déjà parce que Sénégal ñu bëri dañuy génne album mu waaw côté communication xam nga communication moom du doy. Euh, fii ba at bi di jeex warul waroo waroo waroo taxaw quoi nit ki da nga war a constance da nga am war a am benn constance quoi maa ngi ci ci ci à l'avenir juste après tabaski bi maa ngi waaj benn show ba nga xam ne bëgg naa ko def mais pour lancer album bi quoi pour lancer album 8 mars bi gars yi gën a xam son yi nekk ci biir mais pour l'instant dama leen di bàyyi ñu savourer mu lay cegin loof bi comme mi ngi ci biir album bi euh, benn pro comme mi ngi ci biir album bi damay continuer benn promo bi rek après nag euh, après show bi ma gën a continuer yeneen yeneen pour di gën a promouvoir album bi. On y va, eh. Tomber, tomber, tomber. I let it battle, let it destroy.